la de en direct la fii ci Brasil São Paulo waaw gis ngeen ko moo ngi nii sénégalais ñun ñooy wane suñu solidarité ci Ousmane Sonko fii parti yëpp a fi daje amul Pastef amul PDS amul Rewmi amul Madické Niang képp kuy doomu Sénégal rek te yeewoo fii tey jii ci São Paulo Brésil yaa ngi génn di wane sa naqar di wane sa bopp maanaam ni nga xamante ni noonu la Macky Sall bëgg a doxalee Sénégal bëgg a yàq Sénégal di fi jaay dictature askan wi doole di doxal injustice waaw loolu la sénégalais di wane di naqarlu ñoom ñëpp ñoom ci mbedd mi tey pour wane seen bopp pour maanaam soutenir askanu Sénégal pour wax ne sénégalais yi nañ jóg waaw mbajum kanam borom a koy fajal boppam.